désolé président. maa ngi leen di nuyu di féliciter assistance bi fi nekk di féliciter le front di wax rek ne président Macky Sall gëm yàlla parce que sénégalais yi desee lu ñu ko dara fal nañu ko ni ñu ko waroon a fale tey jii ñu ngi xaar mu delloo sénégalais yi li ñu ko joxoon dañu ko joxoon réew mu ne ñum waaye ngalawaay na góor góorgóorlu delloo nu réew mu ne ñum gi ñu ko joxoon suma kàddu bokk na ci wax ak ñi nga xam ne tey jii dañuy mbubboo les spoliés c'est important bu ñu kenn mbubboo madame Aminata Touré mi ma léegi bi ñuy président de la république musuñu ko wax ne ko na reporter élection musuñu ko demander audience c'est pourquoi bi mu waxee ne dafay recevoir les spoliés man ak moom bokk nañu ci ne duñu dem wuy jikko parce que jàpp nañu ne ndaje moomu amul njariñ la jàppoon mooy la ñu waxoon conseil constitutionnel donte dañ ñu tooñ donte dañoo jël suñu droit caxat caxatee sàcc suñu ay parrainage c'est ça la réalité waaye nag yoon bu jugee yoon bu dogalee des koy nangu le 2 avril 19 candidats yi toog fii kenn ci ñoom moo war a nekk président de la République du Sénégal le 2 avril suñu contrat à président Macky Sall jeex na le 2 avril dañu war a am président bu bees parce que nag loolu la constitution bi wax te constitution li mu wax donte metti na donte am nañu ci ñun ñii lu ñu metti ñu ne duppee les spoliés waaye nag faw nit ki gëm yàlla te la ma waxoon ma dellu si golo gi mu ngi ci tool bi di yàq nañu génne golo gi ci tool bi ba pare doo ko waxtaan loolu mooy li ma gëm beneen bi ci des les politiques vous avez une lourde responsabilité ni ñu dajee boole suñu doole ne dañuy xeex que ñu respecter constitution bi ak li nga xam ne moom moo di le calendrier électoral nga lawaay nañu ko defee noonu pour que loi d'amnistie bi mu ndisa ngeen taxaw takk seen ndigg ba loi d'amnistie boobu bañ a jàll yéen politiciens yi moomu leen Sénégal c'est important ñi ñi dañ leen jiital ngeen taxaw ne war ngeen a taxaw bokk ci liy defar Sénégal waaye waruñu leen waru leen takkal seen bopp wala ngeen ñawal seen bopp mbubb boo xam ne daf leen di defal immunité ba lu leen neex def ci réew mi ça ni ñu taxawee pour xeex lii di musiba bi Macky Sall nar a dugal Sénégal noonu lañ war a taxawee pour xeex cette loi d'amnistie bi nga xam ne musiba la ci réew mi ñi ñaa ngi jooy seen i néew jot na jaadu na ñu wax naka la mbir yi demee ku ci sa loxo taq ñu rëq seen digg parce que nag loolu mooy yoon loolu mooy loi maa ngi leen di encourager di encourager encore une fois le front et di wax ne restons unis ben adversaire la ñu am c'est le président Macky Sall et il doit débarrasser le plancher le 2 avril incha allah jërë ngeen jëf. Merci. salaamaaleykum mbokku presse bi euh, salaamaaleykum suma naataango way politique yi ak mbokku société civile bi euh, su ma wax euh, du sori noonu ñaari poñ rek laa bëggoon a aborder ñi ma jiitu fii wax nañu ko sànq le 2 avril au plus tard à 23h59 Macky Sall doit quitter le pouvoir tey gis ngeen ko. dayu assemblée bi nga xam ne moo fi teew day wone ni tey légitimité bi ñun ñoo ko yor boo jëlee liste bi yépp tey nga xool force vive yi waxuma syndicat yi ak ñeneen assemblée bi amoon jamñaajo ëppul légitimité ñi nga xam ne ñoo fi toog naam président moom moo ko jiite woon kooku ëppul gëdd ëppul maqaama parce que du assemblée constituante foofu fu mu yóbbu moom mooy le 2 avril au plus tard à 23h59 Macky Sall bu dee entre-temps démissionné wut nguur gi tey ku kujje politique bi force vive yi dana jël seen responsabilité parce que suñuy lenge du ñu nangu kenn sànni ko ci suuf bu dee pare pour organiser élection ñun ñu ngi di njort ni Macky sàll dana delloo si xelam dana organiser élection nu ko conseil constitutionnel digalee avant le 2 avril lu tax ma wax ko moom mooy tey discussion yu am Diamniadio mënta soppi dara ci li nga xam ne moom la conseil constitutionnel teg madame Aminata Touré wax na ko sànq parce que décision boobu dafa tënk conseil constitutionnel ci boppam moom la ñuy woowee l'autorité de la chose jugée maanaam article 92 conseil constitutionnel fàttali na ko cela s'impose au pouvoir public muy assemblée nationale assemblée nationale amatul benn droit jël benn loi pour jéem remettre loolu en cause ça s'impose à Macky Sall qui doit sans délai organiser l'élection mais également ça s'impose aux autorités administratives comme nu ñu ko waxee maanaam préfet sous-préfet gouverneur mais lu ci gën a yéeme moom mooy conseil constitutionnel mi nga xam ne moo teg dogal bi mënatu ci dellu ginnaaw problème boobu cour constitutionnel yi tranché nañu ko muy Bénin muy conseil constitutionnel français depuis 1962 mu ñëwaat en 1988 ak 89 ak ci décision subséquente yi donc loolu moom mooy autorité de la chose jugée maanaam bu ñu xesee teg liste bi day tënk conseil constitutionnel mënatuñ ci dellu di ci yokk wala di ci wàññi tey benn possibilité la am moom mooy mu wéy candidat yi nga xam ne ñoo fi toog loolu du loolu kese maanaam article 92 fu doole bi di génnee moom mooy dafa ne ça s'impose donc autorité de la chose jugée bi daa am leneen li nga xam ne def ci yokku moom mooy autorité mooy force de la chose jugée maanaam décision boobu day tënk amuñu possibilité loolu moo tax ñuy njort ni ndaam nee na day dem ñu ngi koy ñaanal yàlla teg ko ci yoonu jàmm mais bu jéemee ba élection amut ñun dinañ jël suñuy responsabilité teg nañ benn comité d'experts bi nga xam ne mu ngi ciy saytu et que sénégalais yi nañu dalal seen xel fii ñu mën a gérer état xam nu nation di doxee xam nu relation internationale yi di doxee ñoo fi nekk nañu jàpp ni duñu tumuranke njiit kooku mooy pëj bu njëkk bi bu ci mujj moom mooy mbirum loi amnistie bi maa ngi koy fàttali sànq man nekkoon naa avocat wu collectif des victimes des violences électorales waaw ma tënk euh, ba muy prêter serment maa ngi woon ci Fahd Palace ci ngoon sa ba muy def cérémonie ci salle des banquets di fêter maag ba ma Diop mi nga xam ne yal na ko yàlla yërëm fan yi passé génn na àdduna papaay ndem si yàlla Mamadou Diop ñu ngi woon ci cabinet doyen des juges d'instruction ci ngoon si Radisson mu ne dëjë na victoire am aux victimes des violences électorales te yéen a ci teg seen gët à l'heure du bilan moom mooy président bi nga xam ne moo ëpp massif ci violation droit de l'homme yi ci ji fi dee ci nguur mais li ci gën a yéeme ba mooy ba muy dem alors que dafa waxoon ne mandature am da koy teg ci viol ci contre impunité mu ngi teg loi bi nga xam ne day assurer impunité mais loolu du sotti parce que ñun taxaw nañ pour xeex ko sur le plan international parce que boo leen lire statut cour pénal international foofu lay tëjee ñoo njëkk a signé boobu boo leen xoolee ci préambule bi dafa ne Sénégal dafa am obligation bañ a adopté loi amnistie bi nga xam ne day assuré impunité contre les crimes contre l'humanité foofu laay tëjee donc di leen jaajëfal ci déglu bi di leen wax ne na seen xel dal dinañ jël suñuy responsabilité buñ ci yeggee jërëjëf. merci maître on va xam naa ne du ma yàgg. je vais parler peut-être une minute pas plus mais dama bëggoon bala may commencer euh, wax li nga xam ne moom moo ñu fi dajale tey euh, ñuy jaale sunu mbokk waa Sénégal euh, yi nga xam ne seen gaal dañ doon jëloon gaal di dem Espagne xaw ma dañ doon dem Espagne wala wala Italie seen gaal gi suux ñu di leen jaale seeni mbokk en tout ñi fi nekk ñëpp mën naa wax ci seen tur ñu di leen jaale bu baax seeni mbokk di leen ñaanal yàlla mu xare leen àjjana mais aussi di wax ni naqar la pour ñun waa Sénégal chaque jour chaque semaine chaque mois ñu gis sunuy doom yu génn réew mi dugg ci ay gaal di ñàkk seen bakkan parce que amuñu ci réew mi li nga xam ne neex na leen amuñu ci réew mi ay opportunité pour mën fi toog pour mën a liggéey ba mu jaral leen ñuy sacrifier seen dund pour dem feneen muy naqar ci waa réew mi di naqar ci waajur yi di naqar ci ñun ñi nga xam ni dañu bëgg réew mi am ay opportunité pour sunu jeunesse am ay opportunité pour waa réew mi ñu toog fi tabax sunu réew dafa réew mu mucc ayib li muy wone mooy échec échec total ci politique de jeunesse échec totale ci politique d'emploi échec total ci politique de gouvernance donc loolu may tàmm di wax xale yi bu leen demati fenn parce que ñi tax réew mi demee nii léegi ñu abal ñu soreetul ci ay fan la la toll xale yi ñu toog ci réew mi ñu defar réew mi ñu tabax réew parce que dañu leen soxla pour construire notre pays loolu laa bëggoon commencer li ci des mooy